boo ko defee seen see dagg la seen yaram daa tàng ku sax ñu dagg la ñoom loolu la ñu amee sa waay teg na sengoor caatu caatu dalifoor teg na benn sengoor si digg bi di ootal di ootal caatu tëngeej ikiri kaay baax bu caatu limousine caatu limousine waaw waaw ak caatu dalifoor caatu kaay baax bu tëngeej moo ñu woon jaadu na leen boor Konaté di ndaanaan moo toog noonu si siège bi saan ñaari coach yaa ngi jàkkaarloo ñaari mbër yaa ngi jàkkaarloo arbitre souffle na ba léegi kenn songonte ko sama xel dem na si kaagur ne kër bi mu bëree fii diggante ma Bama Ndiaye ndaysaan dégg loolu loolu njordi la hey mbay kaagur ne moom it kaaw xale bu nekk si yoon la naanaan la bu taxawee nga ne mot loo taxaw mais dafa jot dafa jot nag yenn ñi may ko sens parce que moom may na ay ay xale sens. moom de boole wu si waxam si booy la wàcc ku ñëw mu nappaaje ko. ñu woon ginnaaw mi ngi waaj ji bàyyi rek ràccaat na. ñoom ñaar soriwul de. Ah, nee rukkum daje. Ousseyn borom ko saare. nee rukkum daje waaw nee sa waay wàcce na benn pied bi. yéegalaat na ko ndax wàcce na benn pied ba. waa booy loolu wala lii si waane bëre la. percule neexoon ma fii yow mi féete kaw boo ronul épercule da lay de ron ko épercule moo gën sa joof boobu. sama xel dem na sa guy gi bu ma saa am lii. waaw bu ma saa am ñaari guy ba du ba mu dëgër. nga sempi. waaw waaw ndeysaan ah kii daa yor na ci koy guy gi de kii loolu la bëgg de bu ko nee jàpp day buddi de arbitre puusal waa yow kenn seetaanu la. waaw ñëpp dem leen réew ma. moo mbëri kër a leen téye. ñëpp dem réew ma. mbëri dem réew ma bu ñëwaatoon. lamb ay capitaine K.O. oh capitaine K.O final bu neex la fi demee dóor na ñëpp mu K.O mu doog dem Europe ay super étoile borom dóorkat yi mais dóorkat yi jeex nañ si làmb ji waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw booy ba jaay na ko doole tegal ko 16 mu bañ mu tegal ko 11 waaw waaw. ñaari dañoo tolloo bëre. ñaari mbëri dañoo feree na bëre bi. ba pare tolloo doole. tolloo doole. waaw waaw ko. newoon naa la ñaari mbër yëpp liggéey nañ waaw waaw li koy jeexal ku gën a yeewu si yaay gañe waaw waaw bëre bi bëre kese ko de sew bi lamb waaw waaw du wax jàmm mukk du fa mu jógee mooy ba xanaa xam nga Ousseyn moo formé doole yemul moom moom lii ma yor nii. déggoo mën na ko. waaw mën na waaw waaw deex na ah, waat na si ñaari caat yi waaye caat yi nañ si neng-nengal bi waaye bëre leen ñu ñibbi léegi day sedd ah léegi Sénégal comme France Leewtoo ñu ngi Leewtoo ñu ngi Leewtoo ñu ngi Leewtoo ba léegi kur demul. ñoom ñaar ñëpp a ngi caatu Dalifor ak caatu ak maas limousine bu kaay baax. xam nga maas moom expert la loo fàtte moom a koy fàttali man damay bëgg di boot ndaanaan maas yàgg naa booyi de am na booyu bëri moo leen génnee waaw waaw SBT Média moog wasaare ñoo ma séq waaye kenn wasaare ndeysaan sëñ fa ne muy bas waaw Miña Guédiawaye TV kooku moom sama réew a Guédiawaye TV di doxal nekk site boo xam ne nekk Guédiawaye ak wasaare kenn du moom wasaare moom nekkatul lu ñuy présenté ndax Sénégal xam na ko monde entier xam na ko parce que fa nekk di fa doxal miniature am bokkut ak miniature benn ay élément bokkut ak moo yor Ousseyn mi ngeen di soow këram la jaar lambaloog mi ñuy soow këram la jaar moo mbas di doxal ñëw arène nationale jékki lamba la bagage lamba war a développé maas ñaari mbëri dinañu fi fanaanal sa waay tante na mboot ndeysaan caatu dalifoor bu ko toppee bu mu jeex mais kële moom day défendre mais deful dara waaw bu demee tëju mais caatu dalifoor mi ngi jeexal waaw waaw keroog muy jeex caatu dalifoor ay jeexal sa waay day ndey ngeen rek te loolu jeexalul bëree oh lii am na boo yoo xaye bu doon ñooma buñ jël boo wop pop pop mais keroog muy mujj booy bi moo gën a neeru kuy daan de waaw waaw arbitre suuf la waat na xoola booy bi di ko yoxoosu kii soxorul yow waaw wax na dëgg lu ma la waxoon ne woon naa la booy bi day défendre rek caatu dalifoor moo ko si gën a nekk booy bi bu bëree mu jeex ñu ñibbi waaw waaw ma ngi koy waaj a bëtt caatu ni machine caxabal na ko doodoo fi génn doodoo fi doodoo fi génn doodoo fi génn doodoo fi génn doodoo fi rek fii ngi yanu rek yanu rek nga mën yanu rek nga mën rek la mën ma ngi koy waajal ma ko koy tibb ay waa caatu Dalifor a ngi koy tibb ma ngay bay ma ngay bay sa ngemb la la bay yàlla neex ay waay yëlëb na ko booy bi sukk na benn bati oom caatu ni mi waane na waa yow waa booy yow ay na ko kal na ko waa nee na naa la ko waa bii jëlu ban waa lii la la waa lii mën expérience wax na dëgg booy bi bopp bi daa yàgg si mboq bi waa booy bi nit la kaay nii sama père ngoog kaay nii kaay nii booy parce que yow li ko daanee lamb la ko koy laaj. war ko yonante bi kii mooy kaaw Nimozine ah. caatu caatu Nimozine bëre bi yàgg na mais def nga jalooree. mais noo doo nga tey père. waaw. dañ ñoo yet. yéen a ngi gis man damaa xëy war a ñëw fii ñu gref Mor laa laa ngemboo. dëgg la sama kër fees del. billaahi samay supporters waru ñëw. oto yi mag yi gref mënuñoo ma bàyyi mbooloom bëri ci ginnaaw. dëgg li sama kër de damaa jooy. kooku promoteur bi la gën a metti booy métti na la mais promoteur bi métti na si moom. Discar war na jóge Morla ñëpp. waaw waaw kër ga jënd seen waaw loolu dama ko moo tax mu bëri nii. mais lu tax topp leen xeex bi xeex bi si biir bëre bi xeexu leen ba pare bëre bëre bi yàgg mu jàpp ngeem si biir nga jàpp ngeem si biir nga tànte bokk moom bi ba pare loo ko caxabal yéeg ko. waaw ñaari bërëkat lañ dañuy naxante rek. xam naa ne kii fii ba suba. fu ma eggee dama koy daan. waaw non non li nga doon. moo tax ma ci bëre mu dugg ci fanaa bi. bi. ay waay ma xëcce ko ko waaw waaw ay waay bi mooy ñaar ñaata victoire. onze booy bi ndaanaan la de. bilaay koo ko gis. non ay eh, booy booy miskit lu dem si soos de. booy kooku diisul. def treize combats. waaw gënuma palmarès bi. waaw dafa def ci làmb lu ma deful wala. non non bokkul. mi di daw keneen. mais pour mu bëree yow gënu laa rafet walis maa ngi sant waa Morla yëpp. waaw waa Allemagne. sama waa koñ. gannaaw Badou xaalis bëri waa xaalis bëri li yëkkati may waa Noto Guy Jama. waaw suñu monsieur le maire Noto Guy Jama moo jënd Saaw. waa Jandeer waa Jandeer waa Kër billaahi wallaahi ndeysaan. noonu la demee waaw mais booy fan xoolal. entraîneur yi gërëmal. waaw entraîneur yi maa ngi maa kos kosu Malick kosu Konaté. sama rakk mu ngi nii Babacar. waaw dañoo sonn ci combat bi. maa ngi sant daal. waaw di gërëm ñëpp